mbokk yi yéen ñi ndamoo ak di safoo seen site internet bi di 24 actu tey nag seen invité de la rédaction comme ni ñu ko baaxoo def ak yéen rek saa su nekk suñu ganu tey nag nekk Pape Moussa Sène di membre de la commission chargée de sélections nekk tamit responsable de la cellule Pastef Touba Daaru Manaan kon suñu gan ma bàyyi la nga nuyoo Pape Moussa maa ngi lay nuyu. salaamaaleykum soxna si soxna Assou maa ngi lay nuyu du nuyu internautes yi nga xamante ni ñoom ñooy suivre seen seen émission bi. di rafetlu li ñu dalal ñu représenté fii coalition Sonko président et fii ci Touba. Euh, Moussa euh, est ce que mën nañu xam euh, leen moo la dugal ci politique ak kañ nga ci dugg. waaw politique maa ngi ci dugg récemment rek mën na ne mën na ne yàggul bi nga xamante ne ni parti bi judd na fii ci Touba bokk naa fii ñi nga xamante ni bokk na ci les premiers ñoo adhéré ci parti bi li mu ci dugal tamit moo mën nañ ko xayma ci ay mois wala ci ay at. waaw ci at lay war a toll rek parce que parce que récemment la xam naa ci at lay war a toll. li ñu ci dugal tamit moo ci dugal suñu ay morom yëpp mooy boo xoolee parti Ousmane Sonko ñi fi dugg ñëpp ay ndaw la ñoo xamante ne nii dañoo duñ def politique wala wala bàyyi nañ lii di politique mais boo jàngee am yenn responsabilité yi gis sa réew di suux nga toog seetaan complice nga donc li naan silence complice des sénégalais bañ bañ mu daal moo tax ñu gis ne euh, réew mi war nañu dugal suñu loxo ni muy doxee sama benn professeur daf ñu wax ne un intellectuel war na def lii di syndicalisme wala politique mais gis ne jamono ji syndicaliste yu bëri mën nañ ay politiciens lan donc pourquoi pas. politique directement boo xoolee ku mel ni Ousmane Sonko. ci syndicalisme la débuté bi ñu jàngee ba pare mu syndiqué dénoncé mais gis euh, ñu gis na yow euh, yàggoo ci politique bi euh, ndax amul ci yenn parti yoo xamante ni jaar nga fa avant ngay ñëw ci Sonko ak lan moo tax nga choisir kii nga xamante ni moo di Ousmane Sonko. bon dem nañ soutenir Macky Sall nii ci élection mais nekkul woon dañu engagé wu ci parti am woon ne dañu dañu woon ci parti mais comme ça engagement bi ñu ci jël sol mbubu Pastef. 2012 lan moo leen moo boo 2000 danoo gisoon ne réew a sax danoo gisoon ne troisième mandat Abdoulaye Wade wóoru ko mën a am parce que nekkutoon lu légitime moo tax ñu ne woon wóoru ko mën a am ñu soutenir ko mais déception lan am ci Macky Sall moo tax ñu ne nag parce que dañ ci ñu koy xeex euh, mais est-ce que mën nañu xam euh, lan nga def bañ a la responsable bi ci Pastef loo xamante ne loolu liggéey la wala dañu xool ne yow kat yeeyoo nga ko moo tax ñu jox la ko non waaw xam nga xam nga du ay responsabilité wala du ay sax ay ndomb tànk yu ngand mais uniquement boo jàngee nekk ci dëkk yelloo jox la yenn responsable boo xoolee Pastef ñun bi ñuy fal suñu coordonnateur maa ngi koy nuyu de passage mi comme moom daanaka dañ mel dañ ko désigné leen mën a wax ñun ñoo ne ko yaay dem jiital nañ la parce que loolu moom lu nit liggéey moom la war a nekk wala yaay xool nit rek nga wóolu ko ne jiital nañ la si lii xam nga yonent bi sax dafa xam ne ñëpp nit ñu àndee force am ko jiitu ci ginnaawam mais ñun ñëpp ni nga mën na ne même pied d'égalité mhm. responsabilité yi nga xamante ni moom la Cheikh Thioro amee man moom la amee moom la Mame Biram amee amee moom la ñi nga xam équipe bi ànd di liggéey ci Pastef yëpp moo leen amee mais saa yi dañuy wax d'une coalition donc on parle question boobu ci laa bëgg nga dikk ci bon li ma liggéey ci biir Pastef moo di fexe ba taxawal benn cellule et fait partie des premières cellules yoo xam taxawal nañ ko ci Touba parce que boo xool Pastef bees la amagul doole Touba mais fexe nañ ba taxawal benn cellule Daaru Manaan man maay responsable ba am nañ bureau bureau provisoire mais danañ koy élargir parce que ñu bëree ngi ñëw di solliciter biir bëgg a bokk ci liggéey bi donc dañ koy gën a élargir ñooñu nga xamante ni ñi ngi ñëw pour bëgg a lan lan lan ngeen fa liggéey ci Daaru Manaan ba tax ñooñu bëgg a yéen bon li ñu fa liggéey mooy li nga xam ne moom Ousmane Sonko ci réew gépp mu koy doxal muy wane loo xamante ne ni doxalin bu bees la ci wàllum politique parce que njëkkoon doona euh, jaar pour am xaalis wala chemin la jaar pour réew la moo tax ñu bëgg a ñëw adhéré ci parti bi ne dañ leen bëgg a jàppale ñu bëri ba dañuy woo dañuy sollicité man dama créé benn page Facebook mais chaque jour damay am ay ay nit ñoo may interpellé ne ma ñoom dañoo bëgg ñëw liggéey si liggéey bi mais sans nga leen di jox xaalis parce que boo boo xoolee politiciens yu bari dañuy ñëw dugg ci yenn koñ yi jël yëkkatee xaalis bu bari di jox nit ñi pour nekkul na moom tamit day def loolu. ne moom yorul xaalis bi ñuy joxe. ah lan moo tax nga ne yorul xaalis ak foo ko teg. maa ci biir xam naa ni mbir yi doy xam naa ni joxewul xaalis su ma waxee ne joxewul xaalis parce que dama ci am ay responsabilité xam information fi ñu à 100 pour ñàkk joxe xaalis ak ñàkk yor xaalis dafa bokkul de Sonko dafa yorul xaalis wala dafa joxewul xaalis. non xam nga Sonko dafay wax ne fonctionnaire mu wala politicien waru mën a nekk milliardaire milliardaire boo ko bëggee nekk dangay nekk da ngay créer entreprise gérer ay milliards mais boo bëggee politique moom pour liggéey say réew doo yor xaalis boo jox te gis nga euh, citoyen ci boppam. exigence bi ñu war a am ci seen responsabilité politique moo leen war am seen bopp c'est-à-dire yow mënoo ne bëgg politicien bi jug ba pare wala ko di ko laajaat xaalis parce que boo ko laajaat xaalis la di ko jox askan bi xaalisu askan bi la jël di ko joxewaat bien sûr moo tax ñun suñu programme ñu ko ñu tudd ko jot na li bokk ñëpp jot ci loolu mooy programme Ousmane Sonko c'est-à-dire xaalis bi nga xamante nii yow sa xaalis la sama xaalis

ñoom ñoo nekk ci biir parteem xam na ne Bintam la jox xaalis mooy Bintam la nekk ci état kon nag xam nga ne yow Macky Sall moom yàgg na ci politique bi xam nga politique moom yàgg na ci kon war ngaa jàpp ne moom est-ce que yaakaaru ne moom war na mën a am xaalis boppam boo xamante ne moom la yëkkati di ko jox askan bi eh, xam nga Macky Sall dafa génn ñëw ne def naa sama sama sama xaalis lépp lépp 7 milliards te moom moom ngi ci état 7 ans donc man jàpp naa ne yow raisonnement yow sa xel xala war ak fan la sénégalais mën liggéey at mi nga dajale sa xaalis am 7 milliards loolu mënul ne am 1 milliard par année mënul nekk te moom moo génne na sama xaalis 7 milliards la finalement mu ne Ablaye moo ko ne Alaa ko kon dañu jàpp ne carrément loolu xaalisu Sénégal xaalisu askan wi la jël mais ku mel ni Sonko nga xamante ne ñu ngi koy tuddee coowul xaalis ak coowul leneen est-ce que loolu yow mënul yàq sa der yow mi nga xamante yaa ngi koy jàppale. ñoom ne benn homme d'affaires lëkkaloon mm-hmm. ko loolu Sénégal ñoo waroon a jug daal non seulement félicité Sonko mais ànd ay commission d'enquête parlementaire Ousmane Sonko li mu dafa lay may ma terminer. Mm-hmm. moom depuis 6 mois moo ngi moo ngi au niveau euh, du procureur. Mm-hmm. bind OFNAC bind IGE te ñooñu ñoo fi nekk di contrôler mhm. donc am mais mais mais li ma li ma fi ma bëgg nga dikkee fi mooy mooy en tant que Sonko ñu koy jiiñ loolu te yow nga xamante ne yaa ngi koy jàppale est ce que loolu mënul yàq sa der foofu laa bëgg nga wax ne logique mënul non lan moo tax parce que nit ki boo koy jàppale war nga xool ne moom kat tuumaa lañ ko dara wala deful benn loo xamante problème la nga da ko war a mën a jàppale dama ne benn dossier boo xamante ni daf leer na yow bu setee enquête nga taq di nga ca porte plainte loolu xel mënu ko nangu Sénégal ñoo war a raisonner foofu Ousmane Sonko bu ci taqoon ñu mu dugg kon du ci porte plainte loolu amul sens mais est-ce que est nga ne est-ce maanaam duggoo ci ñëpp wax nañ ne maanaam Ousmane Sonko ak ñi nga xamante ne ñoom la àndal ñëpp ci réseaux yi ci lañ gën a fesee est-ce que yow duggoo ci rek ngir wutaale buzz ak buzz lu mel. li tax li tax fi ma waxee mooy dafa ñu bari dañoo wax ne Ousmane Sonko moom kat ak ñi ma àndal ñëpp ci réseaux sociaux yi ci lañ gën a fesee ndax yow engagé woo ci rek pour am utaale ci buzz. non man buzz maam boo koy xam nga un star mën na soxla buzz parce que moom après dafa koy am lu mu koy mais mais man je suis un professeur d' enseignement secondaire donc lan laay soxlaa buzz amuluma njariñ donc Ousmane Sonko tamit yaakaar naa li muy def pour sénégalais la naa ne Ousmane Sonko daa bëgg buzz je pense que loolu waxee kàccoo ko wax ne moo di Ousmane Sonko yan programme la teg pour dik ko sénégalais ba a dénk li nga xamante ne moo di réewum Sénégal. moo loolu moo loolu a jeex ci minute jot na jot na li ñëpp bokk li ñëpp jot ci muy programme boo xam da ko tënk ci ñetti ñetti ñetti volet muy volet politique volet économique ak volet social bi volet politique bi maanaam ni ñuy doxalee wàllum politique ñu changé ko c'est-à-dire institution yi nga xamante ni di Macky Sall dak teg pour caser ay militants ñu dindi leen remplacé leen ak benn institution boo xam wala ñaari institution yoo xam benn bi assemblée nationale la bu fi nekkoon la ak benn institution boo xam dañ koy jagleelee kilifa diine yi parce que Sénégal dëkku diine la dëkk la boo xamante ni nii 100 pour cent ñu gëm leen mu di maanaam muy musulman yi ak chrétiens yi ak ñi nga xamante ne ni 1 pour cent la ci kii léegi institution bu ñu ko tegee day nekk organe de consultation ak organe boo xam ne day joxe avis am ci yenn décision yu mag yi parce que Sénégal dañuy gis ne dañuy bàyyi ba réew mi tàkk ñu doog woo kilifa diine yi ne na sëñ bi ñaan kii par exemple Sénégal dañuy grève grève ñu demee benn instant ñu ne non seen ci wax ne Ousmane Sonko am na loo xamante ne dina ko Sénégalais muy côté politique bi ak côté euh, côté bi ak yeneen yeneen yoo xamante ne lim nga ko est que nekkul na loolu day day day dana tuur xelu Sénégalais yi rek parce que am nañ politiciens yu bari yoo xamante ne bi ñu bëgg jël réew moom dañuy euh, xool lu leen neex rek ñu dik ko sénégalais mais bu ñu toogee dañuy doxalee lu leen neex. parce que mënoo toog ak ay Sénégal ay cadre parce que parti Pastef mooy parti ay cadre du programme boo xam Ousmane Sonko kese moo ko bind mais parti la boo xamante ni dañu toog lëlu xool jafe-jafey Sénégal d'abord bind benn lii bu tuddee ko solution maam joxe vision ñu toogaat lëluwaat. vision boobu nag naka lañ koy matérialiser en programme ñu bind ko Sénégal xaj na man xaale laa mais boo gëstoo parce que am naa possibilité gëstu su ma gis programme parti politique bu mat 62 pages muy du c'est du sérieux nekkul comme ça ñi nga xam dañuy jël seen benn feuille bind seen quelques points ne mooy seen programme ñun 62 pages lañ bind passe par passe parce que peut-être émission bi mënuma développer lépp mais point par point bu nekk nan koy defee lan mooy solution ya ban temps jël ak xaalis ban koy def fan koy jëlee loolu c'est du ku ko bëgg mën nga dem ci internet bi peut nag ak 10 minutes ci émission bi mënul fi leeral programme bi lépp lépp détail par détail 62 passe mën a ñu changé ko ñu changé ni mbir mi doxee. Mhm. ñu teg ko bu ko defee programme bi nga xam ne bi nag c'est du sérieux te lii bu ko perte man je pense que pour ñu rattraper peut-être mhm. parce que Sénégal am na ku ci mel ni Mamadou Dia. bëgg am vision bu nga xam ci la bëggoon teg Sénégal ñu xañ ñu ko ñu gis ku mel ni Cheikh Anta Diop mu xam-xam bëgg a jël réew ko ci raay ñu xañ ñu ko ñu demaat demaat ba par hasard 2014 un Ousmane Sonko ñëw ànd ak ay ndaw yoo xam ay cadre parce que affaire bi nekkul seulement Ousmane Sonko mais nekk ci biir ay boroomi xam-xam taxaw tëgg programme bu mel nii ngi la waay sénégalais buñ ko perte du ko réccu mais est-ce que jàpp nga ne sénégalais yi wóolu nañu Ousmane Sonko pour dénk ko réew mi ndax boo xoolee Ousmane Sonko mën nañ ne moom taw koo yàgg ci politique bi noonu en même temps mi ngi doog a posé euh, candidat pour mën a nekk bokk ci élection yi kenn du taxaw naan damaa dëng ku ñëw da nga naan damaa jub damaa xam-xam mais gis nga wax dañuy xool ci sa parcours ak sa discours tey jii li ngay wax ak fa nga jaar bu méngooyoo ñu mën am ci yow yaakaar Ousmane Sonko dafa liggéey dafa jàng d'abord génn nekk major ci promotion ENA liggéey 15 ans ci inspecteur fam jaar yëpp audio yaa ngi daw vidéo yaa ngi daw nit ñi def ay seede ci moom ci fam jaar jub gam fa defoon je pense que loolu mooy parcours discours bi tamit ñu xool mu méngoo ak li muy wax jaar sénégalais ñoo ci moom confiance Ousmane Sonko nga xamante ne dañ koy tuumaa ci wàllu diine ak affaire u salafisme loolu lan nga tontu. xam nga loolu moom question personnelle la boo xamante ne nii Ousmane Sonko tontu na ci lu leer naa ni que boo gisee ni mu ñëwee Touba ni mu ni mu am relation mi amee ak Tiwaawoon ak yeneen kilifa diine yi ba ci ñi nga xam ne bokk na même diine ak ñoom je pense que euh, tontul na boppam foofu noonu xañ na kay bëgg fa faire amalgame wala bëgg daw l'essentiel parce que ñun dañ leen di woo ci débat diine débat boo xamante ne nii euh, ci ay idée développé Sénégal mais ñoom dañuy dañuy ils veulent nous distraire. boo xoolee côté boobu nangu cee leeral askan wi dara de. non leeral na ko. leeral na ko non xam nga leeral mënta weesu nga bind xam nga wax sax man na am échappé peut-être ak réseaux sociaux système VAR lañ koy xawma mais bind moom yaakaar naa dafa leeral na appartenance am ci wàllum diine ci ci livre bi nga xam ne moom de vision que ne moom Casamance la juddoo te ku xam Casamance xam ne affaire u tarixa demu fa noonu doole mu koy leeral ci biir livre que moo tax moom jullit la amul benn appartenance ci ci ci ci benn ci benn confrérie waaye également amul ci benn xaar ma yàlla ak benn confrérie fépp fu mu dem dañ koy dalal recevoir te ñun ñu nekk. dalal moom ak recevoir moom loolu ñëpp lañ koy def loolu moom képp koo xamante ne jóge nga sa àll ba sax ñëw ci kilifa diine yi dinañ la dalal waxtaan ak yow. mais ñu loolu loolu lañ gis ci kii politiciens yëpp moom leen gis Ousmane Sonko que ni moom warmaal na kilifa diine amul benn discours wala mu bind wala mu wax. foo mhm. xam ni dafa def wala mu wax fa luy nduru ak affaire salafisme wala. Euh, yéen coalition yéen coalition Sonko président ñu gis ne élection yi da ci des sa baritul yéen naka ngeen koy waajalee. waaw élection yi moom fi mu toll nii ñoo ngi ci dernière partie parce que élection processus la am na période campagne am na jour inscription yi inscrutin bi ak après scrutin bi jamono ji campagne bi tey lay jeex incha ci minuit li ci des mooy jour vote bi ñu wax sénégalais yëpp ñu génn voté ak coalition Sonko président ñu fal Ousmane Sonko sénégalais yëpp yëg ne yëg ne état bi ci leen bokk parce que tey jii da gis koo xam danaan politique du ma ko def parce que ñu jàng la amal njariñ wala politique du ko def parce que suñ faloo euh, ñoom ñi doon ñoom ñi doon kii mais non non daf ne moom jot na jot na li ñëpp bokk ñëpp jot ma leeral loolu rek ci lu ndaw que moo di yow boo jëndee fukki dërëmu xorom 18 pour cent dem na ci TVA TVA boobu noonu mooy suñu alal. mooy suñu doole ñun ñëpp moom lañ boole dénk ko benn groupe mooy état ne ko doxalal ñu ko wala moom mooy gouvernement loolu noonu nag benn groupe ñël ko di ko séqoo seen biir dafa war a dakk que te mbindaan bi ci mbindaan mi nga xam sax moo ngi jéglu ci kàddu gi moo ngi moo ngi kër gi am na war na am possibilité bu bëggee faju faju su bëggee su bëggee su bëggee su bëggee am uh, am faj ay besoin mu faj ko te loolu li koy may maanaam ressources yi nga xamante ni ñun suñu koom la ñëpp ñu bokk ko ñu tasaare ko noo xamante ni ñëpp dañ ci jot mais du doon loo xamante ni benn groupe politicien rek ñoo koy seddoo seen biir je pense que programme bari ñoo xamante ne ñu ngi wax ne yéen seen liggéey maanaam ak lépp lu ngeen mënti def fesagul bu baax parce que dëkk àll yu bari xamuñu leen maanaam Sonko moom réseaux sociaux yi ci la gën a fese comme li ma waxoon sànq mais nee nañ dëkk àll yu bari xamuñu leen est-ce que yéen jàpp ngeen kon euh, war ngeen mën a gagner Sénégal rawatina dëkk bu sell bi de Touba. xam nga xam nga xam nga réseaux sociaux yi canal la pour diffuser message message bi am nga sa cible c'est-à-dire y récepteur y a émetteur mooy ñun ñi nga xam ñoo ci ñoo ñoo message bi récepteur bi mooy askan wi euh, canal bi nag bi muy jaar mooy réseaux sociaux yi c'est-à-dire réseaux sociaux yi jumtuwaay la rek pour ngeen jaarale seen message mais dañ cee yéen a fees parce que politiciens yi bari na nii yéen moom ñëpp d'accord nañ waa Pastef ñoo gën a ñoo gën a fees ci réseaux sociaux yi. bu fekkoonte ne réseaux sociaux yi kese ci leen fii ci ginnaaw dànq seen mbooloo topp ko du dem ba euh, Makka Kulibanta wala Salamata Salamata dan ma woo ne ma Ousmane Sonko moo ngi fiy ñëw nan fekk tout pour mu gisante ak imam bi ma jox la numéro Cheikh Aline Bey te foofu na fa sori moo ngi ca fond fin du Sénégal donc bu fekkoon affaire sociaux la peut-être Dakar ñi nga xam ne am na accès ci réseaux sociaux mais man Sonko fépp fu mu dem ay yow ay exemple Sonko ku suivre campagne am fépp a topp Sénégal est-ce que jàpp ngeen dina gagné dëkk bu sell bi di Touba am nañ ci yaakaar parce que liggéey nan liggéey boo xamante ni nekkul liggéey folklore liggéey la boo xam ne dem dajeeg nit ñi wax leen li nga xam ne mooy suñu projet politique ni ñu gëm ñu dégguñu te ñen dem am nañ Sonko moom booy xool Touba dafa mel ni dafa mel ni ñi nga xamante ni ñi ko miin bari wul de parce que am na ñu bëri ñoo xam ne boo nee Sonko ñaan kooku mooy kan ak ah, non non non da nga bëgg sànni xeer pas sànni xeer pas sànni xeer de parce que yow sa côté bi nga féete peut-être mën naa bañ a wax foofu mais am na ñu bëri ñoo xam ne moom miinuñu Sonko xam nga xalangu dajul fépp mais mais liñ xam mooy ñun fépp fu ñu jaar dañuy gis ne population ba dañu pare woon pour recueillir ñu te am na foo xam sax dañ fa dem yàlla xam na ne yàlla rek tax na démb benn soxna dafa ma woon ngi saam euh, bu sëñ Abdou Latif dañ fa gisaguñ fi waa Sonko ma ne ko nag ñun ñoo ngi wër mais mënuñu daj fépp saam ñëw noonu fa trois fois ban saam la ma ne ko koñ nit ñi ñoo lay woon dañu bëgg ñëw parrainage noo lay demee nit ñi ñoo lay woon dama bëgg a parrainel Ousmane Sonko élection yi ginnaaw suba la dimanche dan gis ne représentant bureau de vote da wër di fay ay ma woo ba démb ñoo ngi may woo ma wax ne ma danoo bëgg nekk ay représentant bureau volontairement pour def nga Ousmane Sonko loolu Ousmane Sonko mu ko nangul loolu violence ak noonu ndax yéen koy maytu bu baax ak naka ngeen koy maytoo non violence moom moom képp koy woote da xamul ndaxte ay moom boo ko xasee ba taal ak yow dootu muccati donc ñun wootewuñ violence et puis ñun suñ c'est notre mooy réew mi dal réew mi am jàmm ñu voté jàmm ñu gagné avancé réew mi parce que bu réew mi tàkkee am na ñoo xam ne ñun ndaw ñi ah, élection yi incha allah bu jaaree ci yoon kenn moo leen wax da ngeen di gagné élection yi liggéey leen gëm ak li nga xamante ne moom lañ ko proposé parce que nga lay defuñu xam nañ li xew mais yéen kese nekkoo leen fi te yéen kese nekkoo nekkoo la ñi nga xamante ne yéen fi ëpp mbooloo ñun dong ñu fi ñun dong ëpp ñu fi mbooloo mais ñun luñ xam mooy luñ liggéey ak li ñu seen li ñu sénégalais yi wan ak li ñu wan sénégalais yi confiance bi sénégalais am ci ñun te xam ne jàpp nañ dañ leen ndax depuis 60 ans ñu leen di ndax ñu yeewu nag daan ne gis nañ benn ndaw boo xamante ni kat pare na pour bokk ñun li nga xamante ne nii partager ak ñun li nga xamante ne nii mooy ay seen ambition politique moo tax ñu gëm loolu noonu li may dénk askan yi mooy projet politique bi nga xamante ne nii moo di Ousmane Sonko proposé na ko Sénégalais yi. Mm-hmm. muy ne occasion boo xamante ne nii dala amoon nañ ko ci Mamadou Dia. Mm-hmm. am ko ci Senghor. Mm-hmm. mu raw ñu Ousmane Sonko ñëw na bu ñu raw. bu ñu rawee dañ koy wëlbati bu dee. 2017. 2019 bi ñu nekk. occasion la pour Sénégalais yi ñu changer système bi définitivement. dund leneen lu bees. parce que système kat boo système mooy lan mooy doxalin boo ko appliqué pendant soixante ans demoo. c'est moment ñu changé ko. il ne serait-ce pour essayer ba xam li wax dina demam du dem. Euh, jërëjëf ñu ngi koy sant bu baax di ko gërëm di sant képp. képp ki nga xamante yaa ngi doon bàyyi xel seen invité de la rédaction mu nekk Pape Moussa Sène di yëngatu tamit ci politique nekk membre de la commission chargée des élections nekk tamit responsable de la cellule PASTEF Touba Darou Manane ñi koy sant baax di ko gërëm di sant képp ki nga xamante yaa ngi doon bàyyi xel seen site internet bi di 24 actu rawatina euh, seen invité de la rédaction ñu ngi leen jox dig daje